mbokk internetu Dakar Live TV dal leen ak jàmm ci xabaaru bés bi at dog yéen jëm ci doomam doomu Mamadou Mansour Diop bile di ab journaliste ca diwaanu Sen TV xam ngeen ne nag jamono yi ñu weesu tegoon nañu loxo doomam bile di wuyoo ci Mansour Diop. moom nag la war a ñu daal di koy teg loxo dafa ànd ak gangam daal di dem nag ca Somone ginnaaw loolee sax ñu doon ca jéem a amal ab agression benn franc sénégalaise moom nag mu nga doon wuyoo ci turu Beya gannaaw ba nu koy agressé nak doon ko mujjee faat ginnaaw loolee sax enquête ba doon wéy ba ñu tegoon loxo euh, kilé di euh, Mansour Diop ak ñooñam ña nga xam ne ñoom la daal di àndal ginnaaw loolee nag defeere woon nañ leen waaye daal niki tey jii euh, ña ngay xam Modou Diop ak kile di El Hadji Ndiaye dëkkoon ca diwaanu Thiadiaye nekkoon itam eh, ab apprenti eh, eh, camion ñoom ñaar ñi leen xam ne dañoo daal di rëcc ca kaso ba ba tax na nag mu di ab alerte bu nga xamante ni daal di nañu koy fësal xanaa rek di la wax ni rek boobu la xibaar ñu ngi ko daal di ni ki tey jii.